li tax ñu woote ko nag mooy que ni ku ne gis na Sénégal depuis euh, fan yi yëpp jaay doole gi nga xam ni moom la nguurug président Macky Sall nekke di dem di jëli ay responsable yoo xam ne defuñu dara ñu leen di dem di jëli guddi ak di fanaan ci seeni buntu kër di xaar fajar jot pour ñu daal di leen jël yóbbu leen dikk di leen bunduxataal ak di leen jaay doole loolu nag bi mu amee nga xam ne mën nañ cee lim ci ñoom ku mel ni le camarade Clédor Sène nga xam ni moom dafa bokk ci ñi nga xam ñoo sos kuréel gii nga xam ne mooy le peuple ñu mën cee limit koo xam ni moom mooy Assane Diouf ñu mën cee limit koo xam ni moom mooy Guy Marius Sagna buñ ci dollee nag li nga xam ni moom lañ gis fan yi mooy di jaay doole ñoo xam ni ay responsable politique lañ bay dem sax bay bunduxataal seeni soxna ak di leen won ni sama euh, réew mi man maa ko moom damay jaay doole donc loolu la président Macky Sall nekk fan yi léegi nag loolu moo tax ñu dajale nit ñi pour wax leen réew mi Macky Sall moomu ko réew mi dañ ko koo dénk pour ab diir diir boobu bu jeexee dañoo war delloo sunum réew ci jàmm moom président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci jaay doole la nekk mais jaay doole bi nag fi mu toll nii da koo gën a yokk fan yi pour bëgg a xoqatal Sénégalais yi xoqatal ab pëpp nag mënut a nekk bu dee peuple bi am nañ fulla ñun nag dañoo jàpp ni lii lu ñu war a jeexal la te toll nañ ci nag foo xam ne dañ naan trop c'est trop et olof yi dañ ni lu ëpp tuuru président Macky Sall nag fi mu toll nii commencé na ëppal kon nag ñun tey li tax ñu woote. mooy ñu yëgal sénégalais yëpp ni lii président Macky Sall def démb jël ay responsable yoo xam ne defuñu dara da leen a euh, woo ca dig pour bunduxataal leen jaay leen doole loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñuy leeral ni même ci forme yi nga xam ne moom lañu leen jële c'est inacceptable parce que convoqué nit bu dee da ngaa am loo xam ne moom nga ko bëgg a laaj mën nga koo def ci respecter ay droit am mais fekk nit koo xam ne deful dara toog këram ngay dem guddi wala nit koo xam dafa génn këram di dem ci boutique di jëndi dara nga koy kar di ko jaay doole kooku ay forme de dictature la yoo xam ne kenn munu ko nangu lu mësul am Sénégal depuis 1960 ba léegi moom la président Macky Sall commencé def naam mi ngi ko doon waajal depuis 2012. maintenant nag ñun duñ fi nekk di wër-wër comme ñoom yoon wi ñu ko jaare woon gis nañ ne yàqu na. mooy jiiñ yàkkataan gi nga xam moom lañ jiiñ responsable politique président euh, parti muy Ousmane Sonko bi nga xam moom lañ ko jiiñ te sénégalais yëpp gis ni ci rapport bi nga xam ne moom la gendarmerie def ci PV yi nga xam moo jóg moo tukkee ci gendarmerie tam nekk ci téléphone sénégalais yëpp ak li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ñoom ña nga xam ñoo ko fekke woon ak même moom Adji saar mii tuumaale euh, Ousmane Sonko bu ñu seetee daañ gis ni dara amu ci lépp ay waxi Balla Pouye de la comme waxi Balla Pouye la te xam nañ ne sénégalais yi du ñu nangu mukk ñu bëgg a wane ne viol moo am alors que sénégalais yëpp xam nañ ne viol amul bu ñu dégloo ñi nga xam ñoom ñoo séq mbir mi ndax kenn gisagul ku ñuy violé ngay organiser sa viol te ñëpp gis nañ ne Adji Sarr moo doon góolu Ousmane Sonko am ñu nekk ci ginnaaw kon xam nañ ne sénégalais xam nañ ne lii moom waxi Balla Pouye de la te teguwul fenn te mënuñoo jaar fenn ba wan nit ñi ne viol am na léegi nag jaay doole ciy bëgg a des léegi nag ñu taxaw ne dañuy jaay doole. maanaam dañuy def lu leen neex jël seen assemblée nationale bi nga xam tekkiwul dara pour ne ko lever immunité parlementaire bi alors que lay xam na ni lii nga xam ne moo am ci dossier bi wax dëgg yàlla jarul lever immunité parlementaire. lii nga xam moo am ci dossier bi aussi xel mënta nangu ñuy def mandat de dépôt kenn ci sur cette base loolu xam nañ ko ñoom mais président Macky Sall ay loi ki règlement mu nekku ci te loolu la ñu woon depuis 2012 jaay doole bi nag dafa ëpp ñuy wax sénégalais yi ne nañ jël seen responsabilité. ñun li ñu mën mooy woote woote fipp fipp dafa jot parce que président Macky Sall moomuñu te sénégalais yi nag gis faut il faut ñu waxante ak ñoom dëgg wan leen ne jot na nag ku ci nekk surtout ñëpp ñi nga xam yore nañ ay kuréel képp koo xam ci société civile nga bokk képp koo xam ne yaa ngi bokk yaa ngi yore kuréel goo xam parti politique la ak lu mu mën a doon na nga xam ne sénégalais yi. ñun bu ñu jëlu suñuy responsabilité président Macky Sall di toog di seetaan ku ne naan sama yoon nekku ci ak ku ne naan laala guma dinañu éliminer benn par benn jaay ñu doole imposer dictature Sénégal fii ba deux mille quarante cinq wala deux mille cinquante il faut que sénégalais yi xam loolu. kon nag loolu bu leeree ñu xam ni fi mu toll nii amuñu choix li nu dese mooy ñu fipp résistance foofu lañ toll ñuy woo tous les sénégalais boor bu ñu mën a doot nekk ñu taxaw fipp wan ko ni réew mi moomu ko. benn département yi nañu organiser wu région yi nañu organiser wu quartier yi nañu organiser wu maintenant samdi au niveau de Dakar ñi mën a ñëw ñëpp ñu ñëw taxaw won ko ni lii muy def jaay doole la te jaay doole ñun duñu ko nangu parce que mënuñu ko fal ba noonu mu bëgg ñoo xoqatal di def loo xam ne tegu ko fenn loolu mënul continuer loolu moo tax tey ñoo dajale nit ñi pour wan leen ni fépp jot na sénégalais yi am leen fulla lii mënut a nekk président Macky Sall mënut a nekk fii napp ñëpp ne kenn du wax may may may sa tend joor man maay buur lu ma neex laay def ñëpp topp ci ginnaawam mel na ñun ay xar la duñ ko nangu parce que réew mi président Macky Sall ak famille am moomuñu ko. kon loolu la ñu wax message bi loolu la te sénégalais yi ñu bàyyi di yóbbante galgal yóbbante galgal ubul làmp sénégalais yi la ñuy woow réew mi ñun ñoo ko moom de façon pacifique. ñu mobiliser le peuple sénégalais war na ko peuple baa ngi nii président Macky Sall moomuñu li nga bëgg def ni dictature bi nga bëgg a duñu ko nangu kooku nag peuple bi peuple bi ñooy rek seen cëggal guy ñoom ñoo mën a ñëw joindre à nous ñu won ko ni réew mi moomu ko une mobilisation forte pacifique pour l'intérêt du Sénégal parce que ñun amuñu intérêt taal taal réew mi suñu intérêt parce que réew mi ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yépp président Macky Sall ak ay nitam moomuñu ko kon duñu fi def lenn loo xam day taal réew mi bu ñu ruubee naan ñii dañoo bëgg a taal réew mi mais am nañ droit bu ñu gisee ni kii jiite réew mi teg ko ci yoon ñu dajalee Sénégalais yépp won leen ni on fait une mobilisation forte dajale ñépp dans toutes les régions dans tous les départements dans tous les quartiers ñu won ko ne président Macky Sall moomuñu de façon pacifique mais de façon ferme et résolue ñu won ko ne réew mi nag dañoo bëgg dictature bii nga xam ne moom nga ñu bëgg imposer mu dakk loolu mooy message bi ñu doon lancé di ko lancé sénégalais yépp ku ci nekk nga bañ a toog sa buntu kër ak de naan man maa ngi leen di soutenir à distance képp kuy kuy ku nekk ci réew mi na nga xam ne la Sénégal est en danger président Macky Sall li mu bëgg a def bu ñu ko nangoo daañ delluwaat ci buumu njaam buumu njaam nag waruñoo nangu dellu ci mmh. war nañoo mën a gëm suñu bopp xam ne président Macky Sall jaay dooleem bi ñun rek ñoo ko mën a dakkal ñun sénégalais yi te mën nañ koo dakkal saa ñu utiliser benn euh, benn violence mën nañ koo dakkal saa ñu ñu def lenn loo xam ne dañ da daañ ko yàq sunum réew mais ñu dajalee doole ji parce que peuple bu dajaloo ni lii lañ bëgg sunum réew loolu benn président mënu koo résister loolu la ñuy woo sénégalais yi donc na ñëpp préparé wu ci loolu pour ñu xam ne président Macky Sall mi ja euh, euh, fippu jot na parce que nag nit mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam te président Macky saal mi ngi mbéj sénégalais yi bés bu ne kon nag jot nañu fipp man loolu la amoon lu ma leen jàllale comme message bu doon merci Abdou Karim